yaa rabbana salli salaatan taqbalu biha alkitaaba saa qabulan yusbilu sitran jamilan maaxiyan kulla uyub maa salaamin daayimin yudril quyub xala nabi wa rasuli ahmada wal aali wa sahbi wa sasaxi ahmada xala nabi wa rasuli ahmada wal aali wa sahbi wa sasaxi ahmada bismillahi rahmani rahim haasihi asmaau suwar awrasani xayral kitaabil akramu bi fadlihi wan qaada naqwil karamu adlul kitaaba saakiran lahu bima liqtaara aysan sulaalan sabima anaalani maalam yunilu xayri man qaadani lahu bi xayri yaquudu lil akramu ma asaawu أنه يفعل ما يشاء يحبد كل سلورى بالحركات وسكنات والجميع بركات أكرمني الكريم والمكرم في الحال والمآل نعم الأكرم أنالني الله نوالا يغني فقلت ساكرا بنعم المغني أذكر حبدا قديما ماكسا بما يسرني ولست ناكسا توفيق توفيقه قد صحصح شيطانا لخير ذاتي وحمل أوتانا يسوق من ليس له كفنات إلى سوى نحوي كل من جار هدى الذي لي جاد باستقامة لأحسن المقام كالإقامة Cheikh Fall Baye Góor yaag sa rakk yi nga toogal yëpp Cheikh Moussa Fall moom Cheikh Modou Falilou Fall mooy jote ay kàddu yu bàyyi ko ci sëñ Fallou nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu nee kon Serigne Cheikh Fall mi ñu wooye Serigne Cheikh Fall ndigal jëwriñ ji nga xam ni moo waral jëwriñ ji jug ñaari kër yi nag day génn kër borom kër gii ñu toog mooy jëriñu borom kër gii ñu jóge ñaar lan woon ñoo xam ni doon ñaar kenn rek lanu waaye nee na ñun ñi nag sunum xel dal na sun xolit sedd na guyu faal ba ñaari jëwriñ yi ñu nu bàyyee ban doonee jenn ñoomit day am yaakaar joo xam ne nag ku ko tas ñu génne la àdduna sëñ Cheikh Ndigal ab jaam nag bu nunguwul la sun borom dogal desul nungu ak njaamam ñun ñii nag nungu na li sun dogal waaye ñin àndal ñu ne fi sun kanam itam la sun dogal ñoom nungu nan ko ñii leen fi bàyyi doy leen rek moo waral ñu fab alal jin yoroon teg ko ci seeni loxo yéen ñaar waaye yéen itam Cheikh Moussa nee na ngeen de ba doyloo gin leen doyloo ba teg alal ci seen loxo ngëb ngeen ko bu dër rafetal ngeen liggéen ngeen ci man lépp nee bu seen Serigne Cheikh Fall mu ànd mbooloo mbooloo ma darko mu nekk ca waar wa ba ngeen jàpp ni jëwriñ jii di doog di sëriñ Fallilu daa wuute jataay ba loolu du ak bon xamade rek la nee lu jotaay ba xat-xat Cheikh Falilou nga ca biir waaye bu kenn fekkit sëriñ Falilou mu ànd ak njabootam gu baax gii mbooloo wër ko mu ne ca xare ba ba kenn jàpp ni sëriñ Cheikh Fall ndigal mii ak rakkam yu baax yi wuute nañ jotaay ba loolu xamadi rek la lu ci nekk kon ku ci nekk dafa am lu ñu teg ci sa loxo ci mbooloo mi nga ne fa seen kanam waaye benn rek lanu lenn rek lanu it nee na xam nga ni kër gii ku ñëw ba agsi fi tey jii sa tege ci mbooloo mi fi nekk ñu ni la lim la ci kër Cheikh danga Fall xam ni Cheikh Ibra Fall du moromam lenn du moromam kenn it moom la sob moom Cheikh Ibra mu yaatale nii mbiram mbiram moo yaatu moo tax nag faaw ñu yaatal ko sëñ Cheikh Fall ndigal jëwriñ ji toog di sëñ Fallilu lii nga ko yoral sëñ Cheikh sëriñ Falilou Fall Cheikh yow tam yéen ñi ànd ak sëriñ bi xam ngeen ni mbooloo mi alal ju toll nii képp ku ko dénkaane bu sa tegee ca kan ko dénk war ngaa jëf ak moom war ngaa wax ak moom. waaye kim ko dégg itam na gore na waxtu wu nekk su bëtam tegee ci ki ko dénkoon dana ca jëf la man dana waxit la man loolu rek moo waral jataay bi mooy rafetalit àndin wi xam ngeen ni bii jotaay dey mook tàbbi àjjana ñoo yem ci ñun ñoo yem ci murit yëpp nee na fu ko wane rek ña nga xam ni dara dara du seenu bëgg lu dul yoon wii ñoom doy na ci ñoom aw ñam doy na ci ñoom ak naan nee na seen xol dina yérax dana dal ratiix loolu mooy xol bu tàlli nee ci mbégte rawatina nag ñoom seen rakk yu baax yi toog wër nga xam ne kenn ku nekk yaa nga jenoog alal ji nga xam ne nun meloon nu dul nii dinañ am ñeggi-ñeggi xol waaye ban nee noonu ci yoon wa téye leen lan leen dénkoon seeni xol dana gën a sedd seeni xel dina gën a dal seen yaakaar dina gën a dolliku te as gor dey ab coonoom bu dee benn coono rek lu mu néew néew ngor war na ko mën a muñ ca coono bi lu metti metti benn coono bi rek lay doon kon ci biir coono kenn ku ne war nga ko mën a muñ sëriñ Cheikh Fall ndigal mii moom ñi bokkal añ bi añ fii tey jii ak leen fi naan sëñ Cheikh ndigal ci am ndox ci seen maam tànki la yoroon ci dëkk bi moom gàddu aw séemañam ndekete booba faal lu am njëriñ tey jii ak la am njëriñ ëllëg neen mi nga muy fàggu rek yii yëpp na kon ca fàggu yooyu la bokk faal mooma rek Cheikh Ibra Faala waaye yéen tamit sëñ Cheikh Fall ndigal nee ci kaddu sëñ Fallilu nee na ñu gore ngeen de di as gor nag sëñ Cheikh ndigal yomb na mooy ku ñaari góor jur l'islam moom góor yi lay waxal ñi góor lay waxal waaye waxut ak yi dara. ñu gore rek la lislaam di waxal kon nag nee na ñu gore ngi nii ànd ak ñu gore nee xam nga mag ñi moom nee da ngeen ko amul ci fi bokk amatu leen ko de waaye nag faal yéen a ay rak ku dul yéen ku baax ku nekk bu sañoon am rak ku mel ne sa rakk yi sëñ waaye nag lool des ko mu la war a mooy seen rakk yi ñoom xam nañ ni kenn gënu leen ay mag ku sañoon da nga am mag yu mel nii ku sañoon am rakk yu mel nii loolu day ñi ngi ñaan yàlla sunu boroom kenn ku nekk la nga bëgg ci sa moroom na nga ko am sëñ Cheikh ñu baax ñii di seen kilifa yi li ngeen bëgg ci ñi ngeen yilif yàlla ngeen ko am de ñi ngeen yilif it bëgg ci yéen yàlla nañ ko am sun boroom moom noppi na bi defee ci yéen ak xam ngeen xam ni ñi ngeen bokkal da ngeen leen a njëkk a feeñ rek waaye li ngeen doon lan doon ngeen ñëpp loola nee xam nga kii moom bu ñëwee toog toogin wii ci kanamu kii toog ànd ak rakkam yu baax yi ma bokkal sëriñ Cheikh Fall Baye Góor da nga xam ni la mu dëgmal adduna taxul bu adduna taxul dina mel ne sëñ ndigal kon nag kaddu yii ñu fi yëkkati mu ne su ko ñàkk yëkkati nag ba nga dégg ko. as gor buñ ko jëfalee sëñ Cheikh day wax ko ko jëfal wala mu wax ak ña ko jëfal kon nag faaw ñu yëkkati kàddu sëñ Falilou Fall mu jëm ci yow mii mu jëm ci yéen ngay jëwriñ yow da gore ci xam ni ñii kan àndaloon fi ne gëmuñu ñoom danoo amatul pexe rek danoo gisatul kan àndaloon ñu fab ñu teg ñu ci seen kanam waaye ñoo bokk kenn ku nu yaakaar loolu nag ndokk ba ngeen doonoo ay gor xàmmee loolu yi mbooloo mi topp suñ ginnaaw danoo gisatul kenn àndaloon ñu fam ñu sëpp ci seen kanam waaye li feeg ñoo ngi ko doon gis duñ ànd ak ñun ñooy ànd waaye duñu teg mukk fii seen kanam kon nag yéen ñi nga xam ne gore ngeen as gor buñ ko doyloo mu doy ka ko doy loo loolu ndam la nee na kon am ngeen ndam yu rëy ci ki leen doy loo ku mu doy loo te doy loo woo ko yow yow yaa doyul yow te ku bàyyi nit mbooloo mu toll nii da nga am yaakaar ju wér ci moom sëñ Cheikh Ndigal kon sëriñ Cheikh Fall yaag sa rakk yu baax yii jëwriñ ji ci sunu kanam muy sëriñ Falilou mi ngi dellu di ñaan yàlla sono borom yàggal sa dund nag ak sa wér yaa ngi baax mi nga xam ni mooy sa rakk yi ngeen ànd liggéey bi nee ku xaar seenu fan kooku yàlla na xaddi ku leen yéene jàmm yàlla na ko ànd ak ku leen yéene lu jàmm yàlla na ko moom. xolub sëñ Falilu mi toog seet na guy ci yow Fall ak ci yéen ak ci kër gi defin wii ku gore moo ko mën a def waaye askor rek mënu koo def kon ñu ngi ñu ngi ñaan suñu borom na lépp barab bii jëm fa kanam sa yéene ji nga ëmb yàlla nga ànd na ñi nga bokkal pas-pas ñëpp defe ko sëñ Cheikh ndigal nu kawe sa njort nee na yow lay waxal yaa moom wax ji sëñ Cheikh Cheikh Moustapha moo wax ay waxam ba noppi tontu boppam nag nee na ñëpp la waxaaleel kon yàlla nga gën a dund rek yaag sa mag ju baax ji ak sa rakk yu baax ak nun murid yi ànd ak yéen ñëpp ànd ak yéen ci seenu bëgg nag tey jii bu ak boo liggéey nee loolu la ni sëkk faal. nee daan wax naan ku nekk ci suuf lañ mën a yëkkati de waaye ku ne ca kaw. kenn mënatu koo yëkkati. nee fan daan nekk nag daa bokk da fii tey. foofaa gënoon a suufe de. gënoon a nag gën naa kawe. gën naa yaatu faal. kon nee mi ngi ñaan yàlla sunu borom. lépp sa lépp gën a kawe. sa lépp yal na gën a yokk. lépp yàlla na gën a barkeel. nee day am kàddu yoo xam ni musulu ko wax. waaye nag seen waajuru baax wa ba ko mujjee fekk ba mu ko mujjee fekk Sam Fall. lam ko waxoon. mu mujj koo dégg moom. mu mujj koo dégg ci moom. mooy su koor gaa. mooy fallu bu koor gaa. nang ma fekk Touba. lii la tàggatoo woon ak waajuram fa Sam waaye yàlla dogal. ba koor ga laata agsi. sa def la ko soob. mu ñibbi àjjana ca baayam. kon xam na ni ne bu fiy ñëw. yoonam woowee rek mu mébétoon moom lay dox si fekk si ko fii rek ci yaay moom mu boole ñu gën ñoo dimbali bu baax a baax gën ñoo yàggal gën ñoo wéral gën ñoo man loolu la bëggoon lépp nag ñu yàgg ko koo defal bu baax a baax nee na xolam sedd na ba baax a baax boo nu gisee ak boo nu gisul foo mën a nekk sëñ Cheikh Fall ndigal njabootu Cheikh Modou Falilou Fall njabootu Cheikh Fall gépp nga fa ñoom itam fu nekk. yaa njaboot gi yëpp yéene nga fa duñ tàqali koo guddi duñ tàqali koo bëccëg ndax danoo bokk loo xam ni mënaguñ koo séddoo loolu nag kon rafetal ga rek moo na ciy noppal kon sa borom yàlla na nu doon ba lépp lu waajur yi naaloon ba tax ñu bàyyi ñu fi ñu àggale leen ci lu bari ba àggale ci lu kawe seen njort te ànd koog jullit yi ànd koog murit yëpp xam nag. bisub Serigne Touba Mbacke la ñu ndigalal ko na ko Sëñ Modou Moussa Mbacke waxoon bëggoon bis bi ñëwatee képp ku ko yàlla man loo te nga ci kaw suuf nga fanaan si Touba ndax boobu fanaanee day mel ni mel na ni ju kii joogu juddu nga xam ni indaalul bàkkaar kon day mel ni set nañ wicc kon jéggalam yooyu ñu ko jéggaloon sëñ Moussa Mbacke di ko yéene jaam ñëpp yàlla bu leen ci kenn après yàlla nañ ko bokk ak jullit yëpp te yàgg ko fekk lool nag jërëjëf Faar suñu xol seet na baax nee na wii yoon daal dara dara dara manqué wul ci yoon wi xanaa ñaan mu gën a yàgg yàlla nañ leen fi yàgg a fekk te ngeen gën koo man ñu nit ñu yàgg fee ñëw yàgg leen fee fekk rek ci barke borom bis bii nee jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. yaa malikan bi mulki astaghni min iqbalan sukri bi ni'mal mughni radiya anni man lahu daarani fali siwaaya yantahi lxaaraani in qaadat lxusna ila jihaati saabu nufus bi durri haati in qaadat lxusna ila jihaati sahaba nafus bi durri haati hafisu billahi kitaabahu bila tawajjuhi durri naxwi walbala nafa li xayri jihatillahu darar bi xayri raddin li wali yubqi durar akramani bi xayri makrin aw qurur wajaadani bi kulli shay'in bi burur kitaabu rabbi qada li ma qada waliya ma yuxjilu fi sooda mallakani llahu mallakanihi llahu tamlikal malik wa qaada li ma lam yaqdu lil muluk tayyaba qalbiya wa nafsi